bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi ngi leen di nuyu wa rawatina ñi nga xam ne ñoo fii ci ndakaaru euh, xam nga ni ñi ngi fii tey ci masaalikul jinaan di am kàddu yi ñuy yëkkati ci teewaayu kilifa yu tedd yi jublu gi nag mooy bis bu màgg bu am solo boo xam ne kenn du ko fàtte rawatina waa ndakaaru muy ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak benn 20 ak 20 sept 21 septembre 2022 dëppoog fàttaliku julli gi nga xamante ni cheikhul xadim julli woon na ko ci géej gi bis boobu nag cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba jiital ci soxna Sooda Xuma sëriñ El Hadj Mbàkke yu fay mi nga xam ne itam moo yor baatam fii ci ndakaaru ànd ak moom liggéey boobu di ko ci jàppale ak mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci ndakaar ak kuréel yi ren itam am leneen lu ci dolliku sëriñ Youssou Diop mi jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah sëriñ bi boole ko ak soxna si ngir ñu ànd bis bi kon looloo waral ñu dajale fii kilifa yu tedd yi kenn ku ci nekk fas yéene am kàddu yu mu yëkkati mu jëm ci suñu fàttaliku ci bis bi rawatina itam ren taxawaay bi dafa jege lool ak màggal gu mag gi te lépp di ndigal benn mënu cee dem bàyyi moroom moom ñu war koo fànnu léegi waajal ko jël matuwaay yi tax incha allah bu ñu jógee ci bisu mag ba mën cee jublu ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha digle ngir ñu delloo njukkal Serigne Touba rawatina nag waa Ndakaaru ci bis boo xamante ni taxawaayam ci biir liggéeyu Serigne Touba ràññeeku na loolu. xanaa ñaanal rek Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg lool Mbàkke te ndax liggéey bii du julli géej gi Cheikh Mouhamadou Mountakha ndaka jekk moo ma woon lépp ci loxoom la ko Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu xaadim rasul baayam ba tegoon ci loxoom mu di ko doxe di ko waxe di ko jëfe ànd kook ñoom ba tey muy doon sëriñ tuuba yëkkati ci ndigal loolu nag mat naa bàyyi xel te taxaw seetlu ndax ndigalal xamatul mun taxa lu jógaat jëm ci julli géej gi te nu këj koo def day beesaat peq mat naa xool waaye li mat a taxaw seetlu it kim ko teg ci loxoom góor baax na jigéen baax yoon wi amul bu doon góor amul buma doon jigéen amul bu doon gor amul bu ma doon géer amul bu doon géwél yoon wi yoonu sëriñ bi la soxna sooda xub ma maamam yi ak baayam yëpp ci sëriñ Tuubaa ñu jeex mu jeex ci takk doon jigéen joo ji bu takkoo góor musu koo mën Cheikh Muntaxa di ko xool di ko wérife ba tànnal ko boppam ah muy liggéey bu delluwaat ci soxna jaaratullaahi soxna Mariyaamu Buso sëñ Muntaxa niru na ko ñëpp xool te jàpp na ko sooda munu ko jàkk munu ko yaama doy mbakke ko soodaa doy ñëpp bi mu la doyee la doy ñëpp ñëpp nag daañu ànd ak moom feeñ ci bis boobu waaye la ci ëpp solo xoolal nag mu woo sëñ Yuusu Jóob ak bu tarxee yëpp ak bu tarxee ca Cheikh Abdoulaat ba ci Cheikh Muntaxa musu taqalikoog ñoom mu ne ko boole naa leen nag soxla sooda dugal ci seen loxo jàppale ca njàng maak organisé waag lépp waaye jëwriñ mbakk yu fay nag moom laa teg ci ndakaaru ak la ko wër te yéen ñëpp gis ngeen bërki dem sama digganteeg mbakk yu na jël loxoom def ci julli géej gi soo na jàkkaarloog moom mu ànd ko ak taalibe yi moo tax le vingt ak le vingt et un septembre nu woo ci ñëpp ci julli géej gi ku ci feeñ ci lu baax doota nëbb moon nañ ko rek mbakki mbakke Cheikh mun taxa gaa yi na namoon nañu julli gi at yëpp defuñu ko waaye Mbàkke beesalaat nga nu ko de dana mel ne mus mus nu ko jëndal ndax sa kàddu gi ma yëkkat sama kàddu jox ko soldaar sëñ Modou Mbaye Samb mu wax ci turu sëñ Mbàkke yu fay nun ñëpp nu déglu ko jullit yi bokki taalibe ngi leen di nuyu di leen siyaare ci weer rawatina barab bu tedd bi nu bokk daje ñu bi ak ziar bi ni nga ko waxee ñu jiital ci fadilatu Cheikh Mamadou Mountakha xalif général di murit yàlla na fi yàgg lool te mu ànd ak wér ak njabootu Cheikhul Khadim gépp jëwriñ nag alhaji Mbàkke yu fay mi toogal Serigne Touba ci Ndakaaru ak li ko wër mësta def dara te soo doxu ma feeñu ca ànd koog moom ci sëkk ba ànd koog moom ba ñu ubbi jumaa ji ànd koog moom ci bisu xasida yi sooda lu xew ci jumaa ji soo doxu ma dugal na ci jëfa dugal na ci afal kaane yi ñu seer ba nag jëwriñ Mbàkke bi mi ngi woo mboolem daayira yi ci Ndakaaru ak li ko wër lépp la tàmbalee Ngorog Wakaam ba keroog nga dem si Buxutaan ku daayira ne tey daayira maam jaar wala ngay daayira yoo xamante ne ay fédération lañu jëwriñ Mbàkke yi woonal la le ak le vingt et fan ci julli loo xamante ne nag Alaaji Ablaay mat naa taxaw bu si yonent bi yemoon ci dekkal naa ko deeg doxaloo naa la fañ beneen yonent ni ko ak man bu sëñ Tuubaa yemoon ci tabax naa juma yor naay daara seexal naa nit keneen ni ko mooy boobu ci bis boobu nga xamante ni sëriñ bi na nga ko wax woon rek la de mësta dañ mukk ànd ak waa kuréel waaye nag mësta dañit di ànd ak waa kon buñ demee ba wootee ko fii maa ngi ñaan bu ko kenn wuute. na Serigne Saliou di woon bis bii bisum Ndakaaru la ah le 21 septembre bi lay leer ñëpp teg seen bi soxna soxna nag Serigne bi sopp ko moo ko tudd Chubada Chubada mooy mooy leen marti mosoo ko gis soraano fekk grand théâtre la fekk rek mooy jàng xasida ak ju jàppale taalibe yi ci loolu rek nekk kon nag bis baa ngi noonu kenn des te ñëpp am na doo aji gam jom ñu ma la ko kenn des ci jigéen ñi ñëpp am na doo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yu tedd yi ni topp yépp ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci kàddu yi sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yenant bi alayhi salaatu santati cheikhul xaddim sunu yaakaar di gën a dollee jaayanteeg moom di ñaanal jëwrinam bii nga xam ni moo yilif tey njabootam gépp mate sëkk cheikhul xaddim sagal islaam bi sagal yoon wi sagal xam-xam sagal lépp lu baax di cheikh muhammadul muntaqa alxalifatul am yàlla yàggal ko lool ci sunu kanam te dolli ko wér di mbokk yépp ni ko ñi jiitu waxe rek xam ngeen ni ñu ngi jëm ci bis bu mag bis bu rëy di bisu fàttaliku fàttaliku nag yàgg na ci lislaam muhammadul busheyri ci téeréem bu siiw bi tudd burdu dani amin tazakuri jiiraanin bi si salamin mazajta dam an jara min muqlatin bi dami am hëbbati riihu min tilqaa'i kaazimatin wa aw madal barqu fi zalmaa'i min idami mu ni lawlal hawa lam turix damaan ala talalin wala arixta li zikril baani wal alami su fekkul woon lu baax rek kon duñu fàttali ko ay suufa ki ay xeer ay bërëb lan moo tax ku baax a fa jaaroon te cheikhul xadim radiallahu anhu dey wax na ni yàlla may na ko fépp fu mu mas a jaar ba tey dañ koy màggal barke dafay nekk day teey te ku fa taxaw jariñu bu ngeen demee ci ma faatiwul bisri dégg ngeen mu wax ni wajal mamari zahiran wa batina lii tayban abdan sakuran xaatina yàlla fépp fu ma jaar ñu ma fay tudd ni mas naa faa teg sama tànk wala ma jige fa na nekk bërëb bu teey na nekk bërëb bu barkel na nekk bërëb bu xéewal bu neex a jaamoo yàlla moom nag mu def jaloore ju rëy te nag jalooree tax ñuy fàttaliku sëriñ bi jaloore ju ji mu def te ba islam de islaam ba tey ci moom lañ ko xamee kon loolu ëpp naa fàtte fu ñu toll war dañ koy fàttaliku di ko waat ngir ñépp xam dayo bis boobu muy julleem ci géej gi nga xam ni da ko nettalil boppam sëriñ xar Khary Bousso ak sëñ Mawlaayo buso di njabootam bi mu leen ko nettalelee boppam ni mu jullee ba àggal sëñ Mawlaayo Bousso bind ko ci xalimaam daal di wax ni wa fil yammi sallal asra yajri bi jildihi maal fulki yabdu raakian xayra saajidi kon sëñ bi dafa julli ci océan Atlantique bi musuta am mu def ko nag ngir siggil islaam yëkkati julli waane ñu jullit fu mu nekk warta tiit warta ragal bu fekkee day wéetal yàlla boromam. kon bis boobu suñ ko dëgmalee muy tolloog vingt 21 septembre incha allah te màggalu tuubaa gi di ko jiitu ngir annoncé nu ko waale ko kon war nan ko teel a bàyyiloo xel jullit yépp ak taalibe yi nu waajal ko xam solo si mu boole ci nag ñaari jàmbaar suñu wéejur bu baax wi a ajaratu sooda xumma nga xam ni moom ba mu gimmee ba léegi ci liggéeyal sëriñ Touba def alalam ci yoonu sëñ góor baax na waaye jigéen baax na genn góor yàlla mënu ko ci liggéey bi muy liggéeyal sëñ Tuubaa yitteem jépp sëñ bi la nga xam ne yàgg naa dalal njabootu sëñ Tuubaa ci këram gii mu boole kook jàmbaar nga xam ne ñu ngi jooy aatu de waaye nag ba tey bu dul woon ak moom ñu gën a jooy muy sëñ Yuusu Jóob di jàmbaar bëgg yoon wi sëñ Muntaxa fonk ko wóolu ko boole leen ñoom ñaar kon taxawaay bu rëy la na ko jullit yépp waajal murit yi waajal ko bis booba ci sunu kanam te nag lu laal sëñ Tuubaa ëpp naa fàtte bis boobu rek lañ am muy julli géej gi yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm bis la bu am solo bis la bu am solo ñu ngi ziar nag jëwrin bi nga xam ne tey jii moo toogal sëriñ Tuubaa ci dakaar gépp di alaaji Ahmadu Mbàkke yu fay defe naa jëfam ju yàgg yàggul dara keroog bi fi sëñ Muntaxaa ganesee ñëpp seere jëfam moom nag la muy wax rek li ma am sëñ Tuubaa la li ma xam sëñ Tuubaa la fa ma jëm sëñ Tuubaa la aw ma yitte ci lu dul sëñ kon nag moo taxit lépp ñu ngi ko ciy jiital ndax mooy jëwrinu sëñ Touba ci dakaar kon dina ànd ak ajaratu sooda xumma ak sëñ Yuusu Jóob ak waa isbu tarqiya yépp ak mbokk jullit yi mbokk taalibe yi nu waajal bis boobu ci sunu kanam di 21 septembre suñu jógee màggalu Touba rek enchaîné ndax sëñ Touba daa bari ndam bari victoire ñu war di jubilé fu nu toll ñu nit kon yàlla ñu ci yàlla yóbbu jàmm nu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullah maa ngi tàmbali nuyoo bi ci sëñ Cheikh Muntaxa Mbàkke xalif général des mourides ko ñaanal yàlla yàggal ko fii te wérul ko di ci teg sunu jëwriñ ci ndakaaru di sëñ Mbàkke yu fay di ko ñaanal yàlla liggéey bi mu tëj koom yàlla woyofal ko ñun nag ñu nga ca kuréel gu liggéey ga di sant maam daam gannaaw bi ñu santee maam daam ñu sant soxna jaaratullaay mam jaara busu ndax fépp fu ñu taxaw fii fépp fu ñu tabax fii maam bu busu moo ko waral kon nag ren bu yàlla dogalee soxna Soodu xuma sëñ Muntaxa seppi ko xool ko xoolaat ku ne ko yow yaa ñu doy man noonu ma ko joxeñee baaraama ni ko man nga ko yor kon nag mën na ko yor te loolu lu mën a nekk la ndax soxna May dafa waxoon ni maa jiitu ci kuréelu ju liggéey gi soxna soxna Soda topp sama gannaaw loolu ba mu ko wax yàgg na kon nag daa jot ndax soxna soodu ko xuma da koo ànd ak soxna yee toog baax ñi leen li ma doon wax ki rek ca ca rek nee naa leen jigéen ñi léegi ñoo mën góor ñi naka jekk ñoo mën góor ñi boo ko xoolee ca maam jaara maam jaara bu sa mi mi mel ni si ma xaadimu rasul nga xam ni ñoo moom ñoo mën góor ñi te ni nga ko waxee soxna soodu xuma jàmbaar na yàlla dogal ren bi ko sëñ bi ne yaay jiite ni ko nag dinaa la boole sox sëñ si Diop mi nga xam ne moo moo ànd ak Hizbut ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen liggéey liggéey bi bisu Ndakaaru boobu ni ko sëñ Saliou waxe woon am naa yaakaar ni mi ngi doog a ñëw te ren ni ko bëggee mooy mu kawe suñ njort bi foo toll ci Ndakaaru mu xasida riir dëkk bi riir ñu xam ni bisu Ndakaaru la ngir ngir dundal kàddu ya sëñ Cheikh Saliou waxoon bis bi nag le 21 septembre la bis bu njëkk bi bisu maam Cheikh Ibrahima Fall la. na nga ko daan defee rek bu ñu xëyee suba dañuy jàng xasida yi bu di wàccee alxuraan bu ci ngoon see ñu dalal ki nga xamante ni mooy kilifa Baye Fall yi guddi ga bu jotee dañuy toog ay waxtaan la ñuy def ay panel la ñuy def. bu ñu xëyaatee suba di le septembre nag mooy bis ba di bis ñoo ngi koy def fële ci jàmmalaay te Parcelles Assainies ci jàmmalaay lañ koy defee. bis ba it noonu lañ ko defee xasida yi ñu jàng ak arxaat yi ñu jàng lim yaag yëpp foofu lañ ko wàccee ren nag waa gis bu tax ci di beneen beneen beneen beneen ngir dundal xasida xaadimu rasul yi kon nag baay bàyyi bi lay mbéy noonu la mbir bi demee imam bi ca ngoon Cheikh Sëñ Fallou fa lay yendu ca ngoon sa bu ñëwee bu cinq heures jotee moo jiiti moo jiiti moo jiiti jullit yëpp murit yëpp ak ndakaaru Sëñ Fallou mu Sëñ Abdou Khadre ñoo ngi leen sant di leen gërëm ñëpp nag sëñ Fallu li mu wax imaam boobu nag mooy doomi cheikh Abdul Xaadir di rek cheikh Mahamadul Muntaxa cheikh Mahamadul Muntaxa doyloo ko indi ko nag moom sëñ Fallu ca boppam moom cheikh Abdul Xaadir ili may tey ba liggéey mooy jiite julli ga ànd ko ak mbooloo mi yépp waaye ma jox sama kàddu sëñ Ndongo Mbuub mu waxtaan ci turu sëñ Ibrahima Cuun ma joor dafee war nekk te nekk fi te Lamp Fall ku ne xam na cër bi mu ci am nun ñëpp ñu déglu ko alhamdulillahi waxdahu wa salaatullahi wa salaamuhu ala man la nabiya baxdahu saydi kulal arabi wal ajami mawlana rasulullahi wa radiyallahu an cheikhina mawlana cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi woote bis boo xam ne ci ndigalal sëriñ saaliw lañ ko daan defe mu cay joxe ndigal mu nekk bis boo xam ni seexul xadiim jëfam juré jooju mu defal ci géej gi te mooy joxe waxtu sunu borom yi subhaanahu wa taala léegi naa sëñ Moustapha loolu sëñ Bamba bi muy dem ci géej julli amul lu ko wóor ci ne bakkan dana ci des waaye bakkanam moo ko jarul faat waxtu yàlla xam ne boo demee sama sàll kër dinaa sëñ baa ngi naan fa ba maayi suuf fa waxal maa bi muy bind loolu boobu wóoteegul am na wallu yoo xam dañuy wax ci kawam ndox bu doon film la dama naa loolu moo doon lancement bi sëñ bi dem ba def loolu def na lu a réy sax nag muy bis boo xam ni bisub Sëriñ Tuubaa la jëfi sëñ ba ji nga xam ni ba yowmal xiyaam la ma wax ni sama lépp lee lay dundal yaqini ilahi wa huwa kulliyati yuhyi bi jaayi rasulillahi man na naju uhyi sëñ mu nag jox ko soxna Sooda Xuma lislaam nag ko nga xam ne jigéen jigéen yaa gën a ci am cër safaak maro bu ñu koy daw jigéen a ko defal ajara daw teg doomam séntu ko may lu mu lekk mbaa lu mu naan yéeg safa gisul kenn mu daw marwa dellu safa muy juróom-ñaari yoon jigéen a ko defal ñuy daw safaak marwa sooda di jàmbaar maa ko xam ndax bi ñu suñu julli tàmbali julli géej gi maa cee doon góor di leen waxtaanal mu nekk xam ne soxna xool ku bëgg sëñ Tuubaa ku ko nangoo liggéeyal la ci wërsëgam ak ci tempsam sëñ mu tax a jiitoo teg ci jàmbaar lislaam nag gis mu tarxiya ñëpp xam seen doxin sell na duñ jaxasoo jigéen ña dañuy muur ñoom jigéen ña ñuy jàngal xuraan bu ñu jàng xasida di ko sëñ Tuubaa bind koy jànge mu boole ko ak jàmb ju si jóob mu ngi leen siyaar baax rafetlu seen doxin ci yoonu murit kon bis baa ngi noonu jigéen ak màggal ga waaye nañu xam ni lépp sëriñ Tuubaa la sëñ bi ñuy fàttaliku demu géejam ga moom la ñu fàttaliku julli ga mu julli ci géej gi rek kon ku jóge Tuubaa rek na nga jubal jàmmalaay bis baa ngi noonu nit ñëpp bàyyi xel sëñ Mbàkke yi fay ñoo ngi koy saar baax di ko jox wàcc waayam an siloo naa sa mën naa silahum li ndakaaru yaatu yaatu moom la sëñ Muntaxaa ni yaa yaa ma fi nekkal kon ñoo koy jox wàcc waayam di saal ñi seetaan ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wasalaatu wasalaam ala rasulillah alhamdu wa shukru ma an lillahi ala nabii wala di abdillahi washkur xilaami waxmat kalaami bila malaami wala amtilaahi sadid lisaani nawir janaani safi amaani wazid baraay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Ablaye xam naa dafa am lu ma sëñ euh, jëwriñ sëñ Mouhamadou Lamine juuf ñaanoon ci fàttali tuuti historique li nga xam ni moom la ñuy waajal. kon maa ngi la ciy ñaan ndigal. ndax dana baax itam ñiy seetaan sunu woote bi ñu xam fan la ñu jóge maanaam fàttali itam jëmm yu baax yi nga xam ni liggéey bi ci ñoom la jaare ba yegg si fii mu yegg si tey. ñu fàttaliku leen itam ñi nga xam ni jiitu ji nanu ba tax na kon. ñu ngi sant bu baax ci jataay bi di tàmbali nuyoo beeg ziar bi ni ngeen ko defee rek ñu àbb leen ko fadilatu cheikh mohamadul muntaxa ñaan sunu borom yàggal ko fi te weral ko ni ko sëñ Ablaay waxe ca tàmbali bi ba tey moom la ndax bi ci sëriñ Saaliwu joxee ndigal cheikh mohamadul murtada moo jëkk jiite liggéey bi fii góor yàlla la tere itam mu wéyoon di jiite julli ji sëñ Ablaay mii xam na ko ndax liñ daan ànd ak moom ca bitim réew ba mujj gi bés bi am na at yoo xam ne sax yaa ngi fàttaliku Allemagne lañ ko daan defee 21 septembre. sëñ bi bu buñ ko ko mësaan wax itam mu bég ci lool moom góor yàlla Cheikh Mamadou Moutala Cheikh Mamadou Moutala moomu moo joxoon ndigal sëñ sëñ Muntaxa mu koy jiite. sëñ Muntaxa am na at moo xam ni sëñ Abdou Hakim la jox ndigal mu ñëw di ko jiite bàyyi ndongo li may wax lépp fekke nga ko fekke nga ko ca tàmbali bàyyi Nazir Touré donte booba mi ngi ci commandement territorial waaye moo jiite kuréel gi ñu jóge fa bàyyi Baba Gueye jiite kuréel gi ñu jóge fa sëñ Alioune Badara Cissé Mourid Cissé ñu jóge fa sëñ Muntaxa mu baax mii ni jamono dox na jéego yu baree bare woo sëñ Maxtaar Diouf ba kaana yàqan alay naa nasul muminin ni ko yaa ñu doy ci kuréel gi fekk na sëñ ki mag ak sëñ Muntaxa bi ñu demee ba am gànt ñu woo seen rak imaamu imaam yi waaw waaw waaw doomu imaam rakku imaam magu imaam it waaw Cheikh Mohamad Fadal waaw diir bu gàtt lañ ci teg rek sëñ Saliou sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ leen bu sa jóge fi sëñ Saliou ni ko kon yaa jiite ji Ndakaaru ñuy ànd ak moom ndakaaru ba tey tey jii Cheikh Mamadou Moustapha magam Cheikh Sidi Mokhtar tànnal nu ko waaye bu ñu dellusee ci liggéey julli géej gi Cheikh Makhtar yóbbu ko fu sore sore waaye ñii ma tudd ñëpp li ko ci tàmbalee Baye Nazir ba ci Cheikh Makhtar Diouf lépp jàmbaar soxna Soodu Xuma mi nga ànd ak ñoom ni duma ko bàyyi ak yéen mukk ak soxna yu baax yi nga xam ne ñoo nekkoon ci gannaawam te mënoon na am gànt ndax li ma wax ci Baye Nazir nii moo nekk ci moom liggéeyam mënoon na tax mu effacé wu lu bare du ci feeñ waaye loolu yëpp xooluñu ko jaayanteeg sëñ tubaa rek takk seen laxasaay ni liggéey sëñ tubaa bi kenn du leen ci mën mais bare na nombo tànk yu mu yor ci réew mi yoo xam ni ku ko fi takk boo demee naan ko dana bëgg nga ñëw ci lii dana la xanaa xamoo ne nangam laa waaye soxna Soda loolu mus ko gàllankoor mus ko gàllankoor ci liggéey bi te loolu yëpp sëñ Muntaxa ump ko bi Cheikh Makhtar Diouf amee ngànt te sëñ Muntaxa nee na du laal suuf mu ni jëwriñu ndakaaru Alaaji Mbàkke yu fay liggéey bii téyel ma ko ndax warta laal suuf liggéey bu sëñ Saaliw joxe ndigal Cheikh Mouhamadou Murtada tàmbali ko soxna may ni man maay njiit li nataal bii ñun def nataalu sëñ bi bi muy julli ci géej gi daanaka soxna may moo sabab nataal bi 1995 anniversaire lu tàmbali julli géej gi fekk sëñ bi am téeméeri at ci këm bi loolu sëñ Muntaxa nii du laal suuf daan nañu waajal liggéey bi sax mu xam ne du mën a ñëw ci mbooloo mi waaye bu buñ nee suba la wala gannaaw suba mu ñëw jàmmalaay ñëpp gis ngeen ko daan nañ jël ay image di ko wane. liggéey boobu yàlla dogal bi ñu koy jox jëwriñ ak fi Covid bi di yegsee muy benn waaye ndekte sëñ Muntaxa bi mu nee jëwriñ bu mu laal suuf terewul saa su yegsee daañu dem. màggal ko symboliquement daje fa donte téeméeri nit la ñu àndandoo julli te lépp ci jëw day teew soxna soodu xuma mës sa bàyyi ci biir liggéey bi mu sasoo ci liggéeyu Cheikh Mamadou Muntaxa bee waañ woo xam ni tey jii ku fa dem di nga xam ni jigéen ju mën góor la joxe na caabi yi sëñ Muntaxa ni la lool lool ni ko nag loolu la jëwliñ téye loon alaaji Mbàkke yu fay ah jot na nag waaye nag danaa la booleeg ñoo xam ni nag isbullaahi lanu muy isbu tarxiya waaw isbullaahi moo jiitu woon sëñ Saliou isbullaahi la waxoon moom la jëkk wax waaw kuréelu sunu borom gi tey jii ñëpp maase nan ni xam ni doomu sëñ Tuubaa du juum sëñ Ablaay dañu woon ci kéemaanu sëñ Tuubaa la bokk ndax àddina boo ko doon wër amul daara ju day na daara jii nga xam ne ci ngeen nekk di fa jàng nasaraan di fa jàng filosofi yu jëkk ya ay Marx ak nag yu mel noonu am am mbooloom lislaam waxtuma la di nekk mbooloom sëñ Tuubaa bokk na ci fàgguteefu sëriñ bi kon buñ demee ba liggéey bu màggee nii sëñ Ablaay ñëw ak ci ñii mu jaar ña ci jiitu ji yàlla na sunu borom dool leen ay tawféex fa ñu nekk ba mu yegg si fii sëñ Muntaxa naka jëkk dafa fonk liggéey bi nanu xam ne daal ku jàpp ci liggéey bi def nga lu neex Serigne Saliou ku jàpp ci liggéey bi def nga lu neex soxna may te soxna may kat sëñ Fallou diiru lu mu fi nekk ku mës ñëw di sàkku ci moom dara danaa la demal ba fexe fexeel ba soxna may dee rek na la muuñ rek bu la muuñee sa aajo faju te ku jàpp ci liggéey bi soxna may dana la muuñ góor yàlla nag Cheikh Mamadou Moutada al mujahidul kabir fonkoon liggéey bi ñëw di jiite si julli ji waaw ba ni mu ko bàyyi loxo doomam mi tey jii sëñ Fallou yàlla na fi yàgg te wér ñu ànd ak moom kon maa ngi ñaan képp ku yëngu ci wàllu communication nañu xam ni événement bu gën a màgg bii ci ndakaaru amul amul ndax sëñ Touba li fi def li fi def fii ci ndakaaru amul ku ko mës a def man nag sëñ Ablaye du ma bett jigéen ñi li ñu mënee ci liggéey bi ndax lan la ma doon nettali keroog ca télé ba sama kër maam sang bii bi ba sëñ Touba ñëwee jigéen ñaa ëpp luñ ko jox ay or mbubb ak lépp moo tax jigéen ñi lu ñuy wooteel sëñ Tuubaa ñoo ci man wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dégg ngeen sëriñ Jiili Ñang wax wax ji dafa rafet waaye dafa dëggu yoon wi Cheikh Mourtala mujj te nu ànd ak moom kër Ousmane Ñang foofu la nekk waaye mi ngi bàyyi xel julli gi toog nañu it ci almaañ ci wax soxna Kati Diop waaw na nañu ci almaañ bi su julli gi jot. mu di ko lu ak di ko fàttaliku kon julli gi lu am solo la waaye nag njàngum xasida mi nag buñ ko waxee ci julli gi ah réew mépp moom lañu bëgg a dégg te bëgg a jàkkaarloog moom ñëpp ñu àndandoo déglu ko. barke bi am tuwa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi ziare mi nga xam ne muy borom liggéey bi fii ñu toog ni nga xam ne li ñuy def lépp ci ndigalam lañ koy defee Basiru mi nga xam ne mooy léppam ñu noppee dañuy nuyu suñu jëriñ suñu kilifa nga xam ne lii ñuy wax nii moom lañ koy waxal mooy sëriñ Mbàkke yu fay man nag sëñ Tuubaa dimbali na ma ji li nga wax léegi juli géej gi yëpp yëpp bi sëñ mu talaa ba ba ba présenté amul benn bu ma juuti barki borom Tuubaa amul benn boo xam ne fekk ma ko julli géej gi may lam ci wax lépp fa la fekk kon man amaat naa tawfiix santaa sëñ Tuubaa bu baax ba fekkee lii di jël kàddu kuréelu xasaar yëpp la ñu leen di wo kulu xasaay Dakar yëpp ñu ngi leen di woo ci liggéey bii ndax dañoo boole waa Ndarxee ñu war a def ay prestation war am yoo xam ne sax fii lañ koy defee kon kuréel Dakar yëpp ñu ngi leen di woo ci liggéey bii nga xam ne ci ndigalu sëñ Bakkiyu ndax sëñ Bakkiyu bu ñu joxuloon ndigal duñ toog fii di wax sax ndax mooy suñu kilifa di santaal sëñ Yuusuf baax a baax di santaal nag Ndakaaru yëpp ñi nga xam ne ay kuréel kat lañu ak ay kat ñu ngi leen woo daal le 21 septembre bi bisu Ndakaaru la ñu ngi ci ñëpp barke boobu daal jaay jëf. dañuy jàll ci jigéen ñi bàyyi leen ñu doog a tëj dafa am nag ay taalibe Serigne Touba yu ne fii ci ndakaaru sëriñ bi dimbali leen te ñu xamal ko seen bopp te daa yëngu ci julli géej gi ndaka jekk muy maître Madické Niang ak président Pape Diop Abdoulaye Dia Soniko di taalibe Serigne Touba Serigne Pape Fall ami bitik tubaarkalla ak ñi ko bokkal Bamba Ndiaye Cargaan ak ñëpp. waaw ak sëñ Babacar njaay mbay Ndiaye sañu si ba dama bëgg a soññi taalibe sëñ bii nga xam ni ak sëñ cagar gi mii nu dëkkal ak Mbaye Sarr Sénégal tout ak sëñ Baara Gaye ndax taalibe yi sëriñ Tuubaa yi ndaka nekk Ndakaaru te sëñ bi dimbali leen te ñu xam ko ñoom dañoo moomal bis bi seen bopp ak Pape Mamar Lissa Ndiaye ñooñu bu ñu jógee rek li Seex taxa bëgg ci bis bi ñoom ñëpp daañu ci teg seen ndax ndax bis bi jiili ak sëñ Abdoulaye Tege tubaarkalla ak soxnaam soxna soxna moomi Kebe eh, tubaarkalla ak Babacar Ngom Sadima xam nga ñooñu nag ñoo xaju xajuñu ci appel bi waaye danañu def yeneen émission man ak yéen ñu leen rappel waaye dama bëgg nag ñu feeñ ñi ñu ci dégg ñi ñu ci déggul it bëgg nañ leen a tudd waaye ñoom sëñ Tuubaa tudd na leen kon ñoom ñépp soññi nañ leen ndax bis bi kat jii li ku ci feeñ ci lu baax sëñ Muntaxa yëg ko dootoo nëbbu kon ñépp ci war a feeñ rawatina nag jàmbaar jii ngeen tudd léegi muy Cheikh Makhtar juuf ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko jaa jaajëfal xam ngeen ni nag ah Cheikh Amar taalibi sëñ Saliou xam nga ni moom it war naa woo naa ko ba dem bi fi sëñ Muntaxa ñëwee man la àndal ba ci sëriñ bi di woo nag ministre de l'intérieur taalibe sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké borom ngot ak mbuur sëriñ Antoine Diome nga xam ne lu yëngu ci kër sëñ Bamba rek ànd nañ koog moom moom it woo nañ di woo it Arouna Coumba Ndoffène Diouf maama ma seere loolu sëñ Bamba ñoom ñëpp woo nañ leen daal xam ni soxna Sooda Xuma mii ñu jox liggéey bi maamam imaam ak baay mi yëpp ci liggéeyal sëriñ Touba sëñ Fallu la ñu kooku moom la jox liggéey bi mu ànd ko jigéen ñu tedd ñi soxna Gàmmu Jóob mi nga xam ni baayam baay euh, bu bu sëñ Cheikh Masee génn dana laaj ñaar baay Njoogu Jóob ak Cheikh Fall bàyyi góor kon tubaarkàlla noon daal woo nañu ñëpp jëwriñ mbakk yu daanu la gunge yaay borom bis bi di si woo ba ki yàlla teg réew mi ci loxoom président Macky Sall o bi moom mbirum sëñ Bamba ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbbu te lu waay di xëccu nag te boole woo ci señ bi doo dem kon woo nañu ñëpp bis baa ngoog la wela ak la vingt bu kenn manki auzu billaahi rajiim bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi barakaatuhu assalaamu aleykum mbokk taalibe yi assalaamu aleykum mbokk jullit assalaamu aleykum mbokk Sénégal assalaamu aleykum mbokk diaspora man soxna Aram Jóob ci turu soxna Soodu Xumma ñoo fi toog tey jii di woote ah bés boobu nga xam ne nii moom lañu ñu dëgmal di 20 21 septembre te place jàmmalaay bii nga xam ne nii moo nekk ca terminus Kaar yi parce que yéen koo bokk ak àddina bi yëpp nag bokk kook Sénégal gépp bokk ak diaspora bi jigéen ñëpp nag taxaw rawatina nag waa kuréelu julli géej gi ñu am pasteefu ñu gëm ndigal sax ci ndigal bàyyi tere ñoo xam ne nii liggéey jaamu yàlla rek toolu sëriñ bi rek ci la ñuy xëy ci la ñuy gont mooy waa is bu jiital ci sëñ Youssou Diop sëñ Youssou Diop bëgg ca lool nangul ko ko it ca saasa saasa ne ko daañ ko def ni nga ko bëggee mbàkke daañ ko def fa ko bëggee ak na ko soxna sooda bëggee ak fam ko bëggee te duñ ci laaj sax duñ ci wut sax ngërëm kon xam ngeen ne loolu mooy faf mooy dàq lem buñ booleeg suukar kon ñun dañuy santaat yàlla bu baax ci bés bii ñu dëgmal bés bi nag jigéen ñi dañ ci am wàll ñu ci góor ñi amee wàll noonu la ci jigéen ñi amee wàll te ñun nit ñi taxawalee bés bi di ko ko teeroo saa yuñ paree 21 septembre dooraat nañ 21 septembre dañ koy dooraat 22 septembre ñu dooraat ko ngir waajalaat bés bi ñun noonu lañ koy taxawalee ci ay istifaar ci ay basmala ci ay salaatu ala bi nga xam ne ay dog yoo xam ne dañ koy yox jigéen ñi ñu di ko saxal ajuma bu ne ñu am nañu registre boo xam ne ci lañ koy verse ni ñuy jàngee alxuraan ji bés bu ne ci daara yi ci Sénégal ci réew mi ci ajuma bu jot ñu deful ko ca kër soxna soo doxuma jàng xasida yi jàngkat yi taxaw conférencier yi taxaw noonu la jigéen ñi takkoo it ba dëgër parce que yéen cee bokk ndax jigéen mosul des ginnaaw kon tey buñ toogee fii di oote ci vingt 20 21 septembre 20 boobu nga xam ne ni moom lañ jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall ci la ñuy def vernissage bi kii la kii fi toogal maam Cheikh Ibrahima Fall représentant ñëw teewal ko guddi ga ñu fanaane zikru laa ba ba set 21 ba nag mooy bés ba ku ne xam na bës ba nag moom ñu bëgg nag ren mu nekk impact boo xam ne nii am dayo bu rëy boo xam ne àddina bi yëpp a koy maasee ndoo màggal ndakaaru nag ba ndakaaru daj gannaaw bës bi dañ koy jagleel ndakaaru bësu ndakaaru lañu wax kon ñun jigéen bu ñu ci kenn man kenn ku ne di jigéen sa gox ba nga ne nañ ràññee xàmmee bés boobu jàpp ko ba bu bës ba jotee fépp fépp fépp fépp nañuy xasida yi jàng riir na alxuraan ji jolli na sikkar si jolli nañ santaat sëriñ Touba delloowaat njukkal sëriñ Touba di ñaan yàlla nag yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm di ñaanal nag suñu jëwriñ yi yal na leen fi yàlla bàyyi ñu sokkaloon asamaan suuf te bés ba yàlla na yàlla fanqal ñu lépp luy lore yàlla nañu ci yàlla may ndam loo xam ne nii mosuñu koo am bañ tàmbalee kuréel ba léegi kon Sëñ Muntaxa dañ koy ñaanal mu yàgg fi lool te wër soxna soo doxuma yàgg fi lool te wër ndax nag ànd bi mu ànd ak seex mun Muntaxa da àndu àndus gor rek la nag àndu taalibe ndax Sëriñ Tuubaa rek leen ñor julli jaamu yàlla liggéey rek lañ ko xamee te ñim àndal mbooloo mi yépp kon nag daayira rey jigéen ñi góor ñi ñëpp ñu ngi leen di woo ci bés boobu ñu dëgg man nga xam ne mooy bésu Ndakaaru mooy bésu Serigne Touba ñu delloowaat ñukkal Serigne Touba ndax Serigne Touba amel nañ ko njukkal defaluñ ko dara suñu bopp la ñuy defal ndax lu waay def sa bopp boo ko defalee benn mu doon la ca juróom-ñeent muy fukk bu fekkoon joxe rek ay tax a ñàkk kon murit yi kenn waxatu ko waaye nag ñu ngi ciy santaat yàlla bu baax di ñaan yan nañ ko tal te fekkee ko kon jërëjëf Serigne Touba. jaraw lak ma Cheikh Ibrahima Fall jaaraama ndaamal daaru jërë ngeen jëf wasalaam. asubillahi mina bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ginnaaw bi ñu santee yàlla sunu borom du julli ci sangu-sang yi alayhi salaatu wasalaam di wax jërëjëf Sëriñ Tubaa di siyaar bu baax nag sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa Mbàkke xalifatul am xalifa sanaalu kullu murit di siyaar axlu Mbàkke yëpp di siyaar nag sunu jëwriñ Ahmadou Mbàkke yu fay ñoo ngi koy siyaar bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal bépp naal bu sëñ Muntaxa teg ci loxoom yal na ko yeggaleeg sagoom ba mel ni di ñaanal itam sunu idool soxna Soodu Xumma ndax bu sëriñ Tuubaa wootee muy sëñ Muntaxa lu jëm ci julli géej gi ñun waa Masaalikul Jinaan kenn du des ndax ndigal loolu lañu jot ci Alaaji Mbàkke yi fay nañ ko daan defee nga xam ne Masaalikul Jinaan ñëpp dañuy teew ci kanamu Soodu Xuma noonu rek lañ koy defee ndax yaakaar naa ni ku dégg sama kàddu rek xam ne ndigal jot na ndax julli géej gi moom lépp lépp liggéeyub sëriñ Touba la kon su julli géej gi ñëwee ñu sargal ci Adja Soda Xuma teg ko ci loxoom ñun ñëpp lañ ko teg ci suñu loxo ku daayira ci ndakaaru ak ku yorul daayira tey taalube woon nañ la ci bis boobu képp ku yor daayira ba ndakaaru jeex fu daayira Serigne Touba Mbàkke nekk na xam ni jigéen ñi jox nañ leen bis bu rëy ndax bisu julli Sëriñ Tuubaa ci géej gi day bis boo xam ni benn du ko fàtte ñu fas yéene nag ànd koog soodu xuma ànd koog moom waaj ndax Adja soodu xuma lépp du xew fii ci Masalik da koy ànd ak ñun ànd ko ki berndeem ànd ko ki kaamilam kon soodu xuma lépp lu mu nekke ñëpp a nga ca bii di ñëw di le 21. mën ta xam lu rëy ndax képp kuy jigéen te nekk bitim réew te nekk Sénégal nekk bitim réew diaspora bi ko war a ñëw ci bis bi ndax kat sunu nawli jigéen lañ jox cër bu rëy rëy kon nag na ñëpp waaj ñëw ci bis bi may woon nag waa Masaalikul Jinaan ak daayira yi nga xam ne ñëpp yu maam jaara ak yeneen daayir yu sos ci Masaalikul Jinaan dégg naa ko léegi muy waa Hizbut Tarqiyyah damay wax toujours ne man ngaa taseeg murit muy dem te du ngeen xamante waaye boo séenee ku bokk Hizbut Tarqiyyah pasol bàyyi nga xam ni kii taalibu Sëriñ Tuubaa bu mag la kon ñoom buñ leen ci boolee boole ci Alaaji Mbàkke yu fay muy jëwriñ Ndakaaru dañuy sant yàlla bu baax di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke lépp lu mu dund yàlla dund lu ko ëpp yàlla yàggal ko fi yàggal fi képp koo xam yaa ngi ci Axlu Mbàkke ba ci daayira bi kon maa ngi gërëm ñépp di sant ñëpp di ñaan ñuy egg ci ak jàmm te lépp nuñ fa daan demee fës nañu yéene defe fa lu raw loolu danañ ko yëgal ñëpp danañ ci def lépp lu ñu war asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërë ngeen jëf ausubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barkib sëriñ Touba Miftaahu Nasri bu Touba Grand Dakar man maay seen jëwrin di soxna May Kebe maa ngi leen di siyaar di leen balwaax maa ngi leen di teebal ci mbirum liggéey bi di leen ci soññ ñu góor góorlu nañu ko daa defe ak nañu ko daa jàppe ñu gën cee góor góorlu bu baax kenn daawuñu ci kenn daaw ñu man gën a man ci liggéey bi ndam lañ daa am ci julli géej gi yàlla nañ sëriñ Tuubaa jàppale ba ñu amati ndam loolu di fàttali ñëpp ni bis bi nag jege na ak màggal bi waaye nag nañ xam ne lépp ci sëriñ Tuubaa la kenn ku ci ne boo demee ca màggal ga na bàyyim xel ci julli géej gi jege na loolu waaye lépp lépp bis bi la lépp ci sëñ bi la rek ku ci dem boo amee boo yeggee rek na nga daal di wàññeekuwaat ndax liggéey bi ak daayira toggkat yi ne ñëpp fàttaliku liggéey bi bàyyi xel ci liggéey bi ñu ngi ñaar isit ñaari tali Grand Dakar Parcelles fépp ñu ngi leen di woo bàyyiwuñu na ci barke Seexul Xaddim jërë ngeen jëf kon ñoo dégg kàddu yi tedd yooyu nga xam ne kilifa yi wax nañ ko fi euh, ak kàddu yi nga xamante ni soxna yi dolli nañ ko fi ci tëj bi lépp rek di fàttali bis boo xamante ni ni ko Cheikh Saliou Mbacke waxee woon ne nañ ko def bisum ndakaaru loolu nag ku ne xam na ni tey Cheikh Mouhamadou Mountakha yàgg na ko ànd ak waa ndakaaru ba tey jii mu jébbal liggéey boobu soxna soodu xuma soxna soodu nag itteem ak pas-pasam ak yéeneem mooy xam ne cër bu rëy moom la Serigne waa jël teg ci loxol waa ndakaaru képp koo xam ne nag ëllëg bis penc bëgg nga bu teewee ci kanamu Seexul Xaddim mu di ko jox ay ndam ak i teraanga mu bañ laa fàtte fexeel ba teew ci bis bi te jëf ci kon ñu xam ne bis fasuñu yéene mu yées na mu daan demee at yi weesu kon ñi nga xam ne dañ daan jàpp ci bâche yi daan jàpp ci chaise yi daan jàpp ci lépp loo xamante ni lu yéwanal bis bi la ñu xam ne ren jii lañ leen gën a taalu loxo daayira yi nga xamante ni tam suñu maxtaar tudd na leen sànq muy daayira xaside yi mboolem kuréel yi nga xamante ne nekk nañ ci ndakaaru ak kuréel bu ñu mën a ne ak fédération kuréelu xaside jokkoo bu ñu mën a ne ñu xam ne bis bi ñoom lay seen bis kon Cheikh Mouhamadou Mountakha tàbbal na ko ci waaye nañu xam ne ren xaside yi dana ci feeñ dana ci fés dana ci am taxawaay bu ràññeeku ni nga xamante ni ni la ko sëñ Yuus mii jëwriñ ji leeralee ñi nga xam ni itam ñoo daan féete ci wàllu togg yi ak bernde yi moo xam Grand Médine la parcelle la ba lu ëpp nangami waañ yoo xamante ni tasaaroo ci biir ndakaaru kon ñooñu ñëpp ñu xam ne tey jii la ñu gën a soxla seen taxawaay tey la ñu gën a soxla seen yitte tey la ñu gën a soxla ñu teew ci wetu soxna Sooda ngir jàppale ko te xam ne bis bi dafa jëm kanam waaye delluwul ginnaaw loole nag ñi ngi fàttali taxawaay bu am solo boo xamante ni kenn ku ne gis na ko mu jëm ci kartu barkeelu yi nga xamante ni kenn ku ne gis na ko euh, ñu yaatal ko def ci yërmaande ba fu nit toll ak nu kàttanam toll mu mën cee barkeelu ci adresse yi bu dee ñi nga xamante ni duñ ko mën a gis te ci lu mel ni Orange Money wala Wave la ñuy mën a joxe seen barkeelu su dee Orange Money bi dièse 144 dièse 621 017 bu dee Wave bi 77 609 95 27 kon yooyu mooy ñaari numéro téléphone yi nga xam ne ci la ñuy dugal addiye yi ci carte barkeelu yi bu dee nag bitim réew soxna marietu Diallo ma ngi Italie waaye mooy jokkoog mboolem ñu nekk ci li ko wër France Angleterre ak yeneen barab yi ci 30 00 39 331 deux cent vingt deux vingt di sant itam nag bu baax euh, El Hadj Serigne El Hadj Mbackiou Faye mi nga xam ne mooy jëwriñu Cheikh mun Mountakha ci ndakaaru ci ay taxawaayam ak ndigal yi nga xamante ni jox na ko kuréel yi ak daayira yi ak mboolem ñi nga xam ne aju nañ ci ndakaaru ngir ñu nekk ci wetu soxna Soda jàppale ko bu bis bi am ni nga xamante ni ni la ko Cheikh mun taxa diglee kon nag ñuy fàttali ñëpp ñu ñaan suñu boroom yegg ak jàmm ci bis bi taxaw ci kem ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha digle ngir wax ne dafa bokk ci ndigali sëñ Tuubaa yi nga xam ne mënta des ginnaaw kon nag màggal gi jege na bis bi xat na waaye bu ñu ko waxee léegi murit yëpp fànnoo ko ñi daan jàpp ci organisation bi ittewoo ko daayira yi waaj ko suñu boroom dinañu dimbali bu soobee suñu boroom bu ñu jógee ak jàmm ci màggal gi ñu daa di ciy sof bis bi defe ko ni ñu ko daan defee te xam ne Serigne Touba mbirum mu ne tayam june day gàcceel démbam suñu borom yeggaliñ ci ak jàmm ñu di ko fàttali ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre 20 ak vingt 21 septembre ci place yu jàmmalaay ñuy fàttaliku julli Seexul Xaddim ci géej gi sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir ni mu ko daan taxawee moo koy taxawee activités yi dégg ngeen ko yi am le vingt ak le 21 ñu fexe kenn ku ci ne def ci ite taxaw ci te ñu yegg ci ak jàmm te suñu borom defal ñu ko ni ñu ko sàkkoo ñu sàkku ci ngërëmul Sëriñ Tuubaa am ko di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.